ñëpp xam nañ ne Sénégal rôle bi fi jigéen yi di jouer mais ñun ñi bokk ci ñun dañuy jàpp ne thème bu ñëw ci ërëm la parce que bu ñu utiliser vertu l'islam rek jàpp naa ne liggéey bi dina gën a tar te yokkute Sénégal dina gën a am te li tax ñuy xëy di jóge suñu kër di ñëw tous les jours bureau loolu rek moo ñu tax a jóg pour yokkute am ci Sénégal te ñu ngi ciy sant yàlla boobu ba léegi

ci xarañam la ak jiiteem en tout cas ministre des finances si kilifteefu président Macky Sall mais aussi si jàpp bi ci ñëpp jàpp la rawatina suñu mbokk jigéen ñi ci jàpp bi ñu jàpp ci liggéey bi tey bu ñu di leen sant di leen gërëm du ma mën a développer ci thème bi parce que ñi fi nekk ñoo ma ci ëpp xam-xam dinañ ko développer te heure bi dafa guddi kàddu yi ñuy rotal fii kàddu ministre des finances la kàddu ministre du budget la di wax simplement kaddu ngeureum la di geureum conférencier yi fi nek ak ñi ñu andal di ci jital suñu imam Lamin sar di ci jital imam Mbacke sar ak sherif ak ñeneen ñi mu andal ñep te nuyu aussi marraine d'honneur yi fi nek ak autorité yep di nuyu Adja seni Gueye mi nga xamni ni suñu tante la suñu mag la suñu bàjjen la lepp ci impôt domaine ñun bañu ñëwé di jang liggéey bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jiite suñuy tànk ba tete ñu won ñu aussi nan la ñu liggéeyee ci ay valeurs yi ñu am yi ñu wone ci valeurs yooyu la ñuy topp te boobu ba léegi aussi si la ñuy topp ay royukaay lañ ci ñun ñu leen di gërëm je crois que tey bu ñu toogee fii réussite jigéenu Sénégal yépp la réussite jigéenu ministère des finances yépp la ñu ci kontaan aussi di leen ci gërëm te jàpp nañ ñi fi toog ñépp war nañ mën a toog aussi place su seen ñeneen ñi fi toog ñëpp ñi retraité ñi retraité gul yëpp war nañ fi mën a toog parce que ku nekk si yéen bay na waaram ba pare ci ñu retraité mais ñi des aussi ñu ngi continuer di bay seen waar di leen gën a ñaax ñu continuer ci loolu en tout cas ci kàddu yi ministre des finances waxoon nañ ñëw rotal ko fii di leen wax ne aussi mu ngi ànd ak yéen ci initiative yi ngeen di jël yëpp daaw ba li ñu fi def gis nañ ko la ngeen continuer aussi di ko naal di ko bëgg def si réew mi di ko bëgg a def particulièrement ministère des finances gis nañ ko mu ngi leen ci ñaax di leen ci encourager di leen féliciter ci organisation bi ak ci ànd bi parce que je crois que waxoon naa ko fi daaw ànd bu amical yépp àndee je crois que thème bi dina gën a nekk benn motivation bi dina gën a baax avancement bi dina gën a am parce que dañu war a sentir na que benn famille lañu bokk mooy famille ministère des finances famille ministère des finances nag amul kii impôt la nekk amul kii duwaan la nekk amul kii trésor la nekk ñëpp dañu war a sentir ne famille ministère des finances lañ nekk ñun ñëpp ñoo bokk kër gi mais kër gi bu ñu ko bokkee aussi ku nekk il faut mu am néeg bu mu dëkk loolu rek moo fi nekk mais ñun ñëpp nag war nañ tase ci ëtt bi te li ngeen organiser nii tey ci ëtt bi la ñëpp tase ñuy waxtaanee thème bu am solo ay nit yu xarañ nekk fii te war ñu ci mën a gindi bu baax nekk fii ngeen tànn leen loolu aussi ñu leen ci gërëm donc du ma guddal wax ji imaam dem leen di sant gërëm leen te bàyyi leen kàddu gi te di jéggalu li tax ma aussi ma war a euh, mën a mën a euh, mënuma teewee ba conférence bi jeex loolu aussi maa ngi ci jéggalu bu baax parce que bu ma sañoon ma des fi ba ba conférence bi jeex dafa fekk ñu am gàllankoor yi ñu war a def parce que aussi euh, liggéeyu état du jeex amul samedi amul dimanche ñuy continuer tout le temps di wax ne maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci turu ministre Amadou Ba ak ci turu Birima Mangara ak sama tour personnel jigéen ñi ëmb ministère des finances di def ñu koy def aussi ci turu ministre de l'économie des finances Amadou Ba ak ci turu ministre délégué chargé du budget mooy Birima Mangara ñuy wax ne li tax ñuy ñëw yoon la ñu ñëw parce que jigéen ñi ku ne xam nañu rôle bi ñuy joué ci Sénégal de manière générale mais ministère des finances bi ñu gën xam xam nañu aussi rôle bi ñu ciy joué te thème bi ñu tànn tay moy thème bi traité ci njëriñu l'islam ak vertu ak règle yi l'islam traité face euh, ci crise bi nga xamné ni ñun ñëpp noté nañ ko moy crise de valeur bi am ñu japp né imam yi kay traité fi. buñ ko waxé dina gëna ñaax suñu jigéen ñi mais aussi Sénégal de manière générale ñu gëna gorgorlu. té te loolu rek mo ñu ñor ñu gorgorlu pour suñu réew mi gëna jëm kanam et jigéen ñi am nañ ci wàll bu am importance donc c'est normal ak sama nijaay ñu ngi leen ci gëreum di leen sante war wax ak sur les vertus nobles de l'islam dans une société en crise de valeur di thème boo xam ne EG wax na ko léegi bi dem ne ça vient à son heure fin ñu ko moi moom mooy waxtoom pour ñu mën a dégg li wax plan bi may adopté mangi ngi de di définir lan moi vertu intérêt li ñu war a wax dañ koy tëkk ci tënk ci ñeenti ponk bu ñu jugee ci loolu dinañ développer troisième phase bi nga xam ne la thèse islamique bi lay wan les vertus nobles de l'islam quatrième partie bi antithèse lay doon muy les contre-valeurs de l'islam doog a xool nag ci synthèse bi ban recommandation la ñuy jël doog a war conclure moom vertu boo ko doon définir boo demee ci Russ yaa ngi dégg mu naan la c'est une disposition constante qui porte à faire le bien et à le mal bi ma ko liiree ma yaakaar ne tubaab yi dañu mën a jàng ndakate tubaab li muy jàng ki bind juróom-ñaari asamaan ba pëtaxul bind juróom-ñaari suuf ba màbbul di ki fi indi ñépp teewe lépp mu ne bi muy qualifié xeetu sayyiduna Muhammad ngir ñu xam ban gën lañ gën yeneen xeet yi daf ne leen kat kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar sayduna muhammad man sa boroom gëmewuma la ak bëgg la bëgg tax na lépp lu ma mës a bind yow sayduna muhammad yaa ci gën waaye gën gi nga gën yeneen yonent yi tax na sa xeet moo gën yeneen xeet yi waaye nag do len deñ di gën yeneen xeet yi lu ci ñaari condition di leen digle lu baax ak di tere li nga xam ne mooy lu bon ñuy wax nag ban intérêt lañ gis ci di waxtaan ci tem bi bi ci njëkk mooy la cause principale de notre existence sur terre c'est de mener de bonnes œuvres yàlla ndakate li tax mu ñu weesuwul ñaari loo leen am ci ay yére sol leen loo leen am ci ay bien def leen ci li leen neex waaye nag bu leen réere mukk li tax ma bind nit ak jinne mooy ngir ñu jaamu ma man rek ñu daal di ciy déggee ne kon la première cause de notre existence c'est l'adoration yàlla ndax ca nga yem mu ne déedéet tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala nee na bind gi ma bind asamaan ak suuf bind guddi ak bëccëg bind nit bind jinne bind ajjana ak safara bind jéeri ji ak géej gi yàlla lan nga ci nam mu ne na nit xam ne li tax ma bind ko c'est de mener de bonnes œuvres sur terre kon day am une équation à deux variantes benn bi c'est une relation verticale sa digganteeg sa borom na la wóor ne loo def lu dul jaamu ko tooñ nga sa bopp beneen bi di une relation horizontale yak ci jëf lu dul li nga togg ci sa jikko mu ne kon loolu mooy premier centre d'intérêt ci ñuy wax sur les vertus nobles de l'islam jikko ju rafet mooy li nga xam ne moo taxoon yàlla yónni sayduna muhammad yonent yàlla isa bi mu jàllee sayduna muhammad ñëwagul période boobu la ñuy wax les siècles des ténèbres mooy jamono ji nga xam ne doomu aadama degrade na boppam ci ñaawteef ba mel ni mala suñu borom di laaj univers bi ndax man may yàlla ndax kenn faaleetu ko kenn jaamootu ko bi àdduna naree yàqu nag moom yàlla ci la gël jël ki nga xam ne moo gën ñépp ci lépp ak ci fépp di sayiduna muhammad daal di koy yebal ngir mu sauver univers bi bi ñu nee déret egsi yeeferu makka dat leen jiitu éthiopie jàkkaarulog buur bi naan ko ay nita ngi yoo xam ne tekkiwuñ dara ci seen askan ñi ngi topp xale bu tuuti boo xam ne muhammadu lay rasulullahi lañ koy wax lu jiitu muy judd bàyyam dee na lu jiitu muy xàmmee ndayam dee na amul taqul yorul ñu topp ko ne mooy seen yonent najaasiyu di buur bu am xel ne jaafar sadiq ñi de accusé nañ leen lan ngeen leen di tont mu ne ko kunna qawman ahla jahiliya na'budu al asnam wa naakulu al maytat wa naati al fawaa'ish wa naqta'u al arham wa nusi'u al jiwar fa kunna ala zalika حتى بعث الله إلينا رسولا منا كما قال الله في الكتاب المبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من أجل ذلك قال الشاهد لولا ما سلينا وما اهتدينا ولا سمنا ولا صدقنا كندو سيدنا محمد جافر صارخ لغوا وقت نجاسي يونيكو خالي بي خالي لك أمول يرول تقول نينكوي غافل ندخ لجيتو مي جدو بايام دينا لجيتو مي ورونا خم بأليف ينكو جوخ mu bañ a topp ay prime di topp ay augmentation ba sacrifier leen te yonent bi waxoon nañu kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk bu yow xiyaame non seulement yàlla dina ko laaj lam doon sàmm waaye nan la ko doon sàmmee tailleur bi ci marché bi boo ko joxee sa piis mu sàcc ko commerçant bi ci marché bi bu lay peeseel day norloo pot bi ngir sàcc la ay garaam ndax xamal ngeen ko ne waylun lil mutaffifin allazina ida ktaaluu ala nnaas yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wasannuuhum yuxsaruun waylun yàlla nee na gorot la bu dañ ma ci dañ maa yéene ci mbir mi rek wante li ma war a wax yëpp ak li ma ajaamati laaj xam na ko moo ma ko dàq waxit comme jox nañ ma kàddu gi Euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax ci jataay li sant bu baax a baax ci conférence bi euh, sant ci liñ ñu wax yokk nañu ñaanal ñu rek ñu bañ a fàtte bu dee li ñu jox yow conférence bi tey denc nañu ko muy des ci ñun di bees bu baax donc lañ yokk bu baax suñu diggante ak suñu borom euh, di kontaan nag ci sunu tiitaru bopp boo ñëwee dama lay booleeg docteur xam nga doomu aadama bu la ko yàlla joxe muy valeur muy ku baax da ngay ñaan yàlla yàlla di la ko gën a sàmmal docteur yàlla na la yàlla gën a sàmm gën laa jàppale en tout cas yàggal la suñ kanam ànd gi di yàgg ñu sant nag ñëpp ñu ñëw wuyu si jigéen ñi ku leen wuyu si euh, ñun nga ko defal parce que ministre bi ñii la am man bi ma ñëwee ci ministère bi docteur ministre bi daf ma leen dénk naa leen toppatoo donc ku wuyu si man dafa mel ni man nga wuyu si donc kontaan naa ci loolu ma sant invité bu baax sant marraine yi sant ñi nga xam ne it ñoom ñoo ñëw taaral bés bi ak ñi si def ndimbal biye yi nag moom ministre moom amical des femmes may na leen sept billets waaw te

ci en tout cas ñu ne lu ñu ko wax mu nangul ñu ko ñu ne nañ ko def 3 millions képp ku am bien 3 millions lay doon waaw bu ko defee it ñu jàpp ci noonu yi même suñu mbokk catholique yi jox nañ leen ñaari billet ñoom 2 millions la mais ñu defal leen ñoom it 3 millions benn yoon rek muy dimbal muy ndimbal loolu. loolu laa ci amoon. ak kontaan yàlla dimbale nañu. ñu def ko si bisimilahi rahmaani rahim jaar ko alhamdulilahi rabil alamin wax dëgg yàlla jàppale nañ ñu autorité yi suñu ministre jàppale ñu ñun tamit góorgóorlu nañu suñu kees daal ba indi ba créé ren loo xam ne mooy màkk xaw ma euh, Maroc pour mag ñi ndax mag ñi ñu ngi fi depuis 92 te ñu am jom di cotiser ba léegi moo tax nag rafet na mais dem nañu màkk ba pare mais rafet na nag ñu gestu leen ndax actuellement xale yi dem màkk ni cotisé wuñu sax lu mat 500000 mais seen tour la ñoom la tombeel la ñun ñoo fi doon ay xale ba nekk fi mag te duñuy ñaan yàlla jóge fi bàyyi fee xale yi si jàmm waaw moo tax ñu créé billet phase pour cette année là man daal dama kontaan di sant nag sama borom lépp nag borom bi la man mënuma dara ak ñii jàppale waaw maa ngi koy sant doole di ko sant wax yàlla lañ doon séntu yëpp yàlla rafetal na lépp yaakaar naa ne ñëpp kontaan nañu te jërëjëf. Fès euh, du boo gisee ne restaurant suñu restaurant bi ministre daf ñu ko bàyyeel daan nañ si am nag billet màkk ndax boobu liñ ko daan joxe moo gënoon bare mais ren bi équipe bu bees bi ñëwee duñ ne comme que cent 100000 francs lañ koy def 100000 francs xam nga ma tuddul billet màkk te màkk dafa cher léegi nag bu dee la ne 1 million cent la. léegi suñu conférence bi membre yi ku nekk duñu participer ku nekk 5000 liñ si am moom la ñuy boole bu dee mottali nañ tuuti rek ñu boole ko soutien yi eggale ko mu doon billet pour mag ñi waaw billet ministre set la at mu nekk noonu la ñuy jox ndax ñun amical maire la ñoo ëmb direction yëpp ñëpp am na quand même ñoom créé nañu ay amical mais teewul ñoom itam dañoo ñëw bokkaat ñun mënuñoo bañ kenn dañoo ubbi daal mu yaatu moo tax ministre moom may ñu set billets yàlla def na ñun am na ñaari billets ci kees gi ndax xale yi cotisation comme ñun amuñu benn subvention suñu cotisation rek lañu yaakaar moo tax chaque année un an la ñuy laaj xale yi nag am jom cotiser moo tax chaque année ñu tam ñu wane ne comme indi nañ seen xaa ñu génne leen ñaari billets léegi port may ñu benn impôt may ñu benn te yàlla def na kii sama ginnaaw secretaire général moom moo génne na si euh, Maroc bi ak euh, waaw mooy social ndax social laa ko dugal moom tam yàlla def bokk na si te ñoom ñii ñëpp demoon nañu màkk mm-hmm. te depuis 92 à nos jours bari na te boo xoolee ba xool li ñu dugal si kees gi bari na waaw te am na mag ñu bari ñu fi bokkoon am na ñoo xam ñi ngi fi mais cotisé tuñu waaye quand rek ñun ñu ngi leen gérer ndax ay mag lañu waaye nag ñii ñoom danoo danoo xam rek ne biyee màkk

Hmm, douze billets Màkka ak trois billets Fès waaw. waa di sant ti sama borom nag wax dëgg yàlla jàppale nañu waaw ñu ngi nag séentuwaat ñeneen yeneen kii xëy na peut-être suñu autorité am lu ñu wax ndax am nañu lu dig daal mais lépp rek ñu ngi dundee yaakaar te yal nañu yàlla lafal cat taxuñu yiir ñu ndax wax dëgg yàlla ñun ñëpp équipe bi macha allah yàlla def na ci déggoo. and nañu nek ben te lepp lu wara kaas rek comme man mi kenn des fois je suis nerveuse mais damay wax limay wax rek may parénance yi voilà ñu ngi gëreum di len sante ñom tam ménager nañ ma ndax buñ ma topon des fois xëy nañu gis seen bop mais quand même xam nañu man nitu kessé la damay wax rek parénance wa ñi ngi maa ngi leen di gëreum di len sante di gëreum xalé yi and eh, ci amical bi moy xalé yu ndaw yi jàppale nañ ñu bu baax si amical bi ndax dugg nañu ndax léegi ñoom ñëpp ay adjointe la ndax ñuy ñaan yàlla eggali si lii jàmm jox xale yi léegi ndax man vraiment je ne plus daal waaw maa ngi sant yàlla nag di leen gërëm di gërëm équipe bi yëpp bàyyi ma kenn doyen yeeg ñëpp ak suñu autorité parrain yeeg marraine yeeg ñëpp ak invité yi maa ngi leen di gërëm ak yéen tamit surtout presse bi. Mhm. wax dëgg yàlla fu mu nekk ngeen ñëw fi commencement bi.